comme Sénégal maa ngi ni siyaar ka si nekk ma dala jox sa waay avant nag ñu ñëw si thème vidéo bi damay jaale mbokki patriote yëpp ki nga xamante ne mooy menace la capricieuse ginnaaw feebar bi ko mu xaw a yàgg di ko ñaanal yàlla njëggal ak yërmande mu nekk une patriote combattante boo xamante ne dafa wàcc si terrain bi nekk si combat bi 100 pour cent euh, vraiment deewee na ndaw ñu koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana métti na nag deewu xale dafa métti waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana di jaay nabi Moustapha alayhi salaatu wassalaam di ko jaale mbokk patriote yëpp waaw euh, bu ma jógee foofu rek euh, damay ñëw directement si xibaar bi nga xamante ne déggoon nañ ko sànq mooy ñi doon jël parrainage fële si yëmbal nekk si waa kër Pape Djibril Fall surtout Pastef donc mu nekk loo xamante ne euh, du du ñoom kese ah parce que ñiy sàcc parrainage bëri na yàlla moo def Pastef moo yor Sénégal loolu yàlla moo ko def Pastef moo ne Sénégal yàlla def na ñoo ëpp mbooloo xëj na nag ndeysaan loolu leen xam ba tax acharnement bi si ko Ousmane Sonko jël droit jël yoon maanaam di ko acharné wu si kam di àtte loo xamante ne sax dëgg yow da ngay sa ba da ruus. boo xoolee cour suprême nu mu di di décision nu mu jël démb da ngay rus da ngay rus da nga naan non lii mënul nekk mais nag du jàll nag def ngeen seen décision ba pare li ma ko yàgg wax du jàll te li si kanam rawul gët may wax yéen yi nga xamante ne yéenay sàcc parrainage yi ngir yàlla am leen jom ngeen demax seen turu bopp te ngeen bàyyi suñu Pastef bi ngeen di mbubawoo yéenay ñàkk jom la yéenay ñàkk jom ak xam sa dëgëre yow fa nga toll te ngeen bàyyi ñu yéen pourquoi pourquoi ngeen di euh, utiliser turu Pastef li tax loolu yéen di ngeen óolu seen bopp kañ demal leen demal leen seen bopp te bàyyi sàcc yi ah du yéen kese de waa kii Pape Djibril Fall bi waa Bennoo sax tamit ñoo ngay loxoti si suuf ñun xam nañ lépp gis nañ lépp góorgóorlu leen nag. ngeen bàyyi sàcc bàyyi leen ñu wax suñu lycée bàyyi leen ñu may profité di wax patriote yi xibaar bi ngeen jot démb lu jëm si wàllu cour suprême lu mu jël décision nañ jàpp ne seen décision la rek waaye jàppal leen ne te mooy am Ousmane Sonko sera candidat dogalab suñu borom na mooy tàbbi seen kaw ba doo leen mën a bañ loolu incha allah Ousmane Sonko sera candidat soobee yàlla élection yi ñëw dana si bokk. te dina ko remporté ma dellu di leen seen xel yàlla noppi na ñoom nag dañoo am ay pexe pour naxasal Ousmane Sonko boobu ba tey ñu ngi si nag waaye yàlla tamit mu ngi ay du mën a sax pexe mu ngi ay mu ngi ay ay ay dogalam te bu soobee suñu borom Ousmane Sonko